mooy gën a jox euh, di nga gën a mën a reconnaître tout de suite son époux grâce au bleu. effectivement effectivement effectivement boo xoolee tout de suite. Mm-hmm. voilà donc euh, mu ngi mel ne ñoom ñëpp seen euh, partenaire yi moo xam seen soxna wala seen ay borom kër en tout cas euh, ñi ngi leen di wan seen ànd ak ñoom on a vu le président Macky Sall il n'est pas candidat mais qui est allé voter avec son épouse à Fatick et noonu également lañ ko gisee ci yeneen candidats yi donc muy tradition boo xam ne ni ñu ko waxee Charles ñu bëri respecté nañu ko. waaw dañ koy respecter parce que loolu tam day wan un signe d'équilibre. Mm. voter en couple. Mhm. montrer l'esprit boo xamante ne c'est l'esprit d'une famille mhm. nit ñi ànd parce que bon euh, on a vu ay images par ailleurs yoo xamante ne ku mel ne Donald Trump on avait vu difficulté yu amoon ak mhm. soxnaam et la presse américaine d'ailleurs elle s'est beaucoup amusée si ah, si seen jàppante loxo euh, bàyyante loxo yi de la même manière que gis nañ ko Obama ak jabaram donc c'est des images yoo xamante ne aussi dañ bëgg a won Sénégalais yi que ñun on on est bien Mhm. on est en famille ak yu demee noonu parce que mhm. sénégalais aussi buy choisir euh, day day choisir koo xamante ne tam mhm. euh, dans sa vie de de couple wala dans sa vie de dans son ménage ak yu demee noonu dafay représenter loo xamante ne équilibre mun nañ ko fa gis pour que moom mu mun a def confiance donc c'est c'est tout ça c'est des formes de communication aussi. Mhm. Hein, c'est des communications yoo xamante ni ñu ngi koy santi sénégalais yi. c'est ça waaw donc euh, forme communication la boo xam ne ñun ñëpp ñu koy sentir. te waaw parce que boo euh, xoolee bu baax sax. voilà jëkkër bi il est colonel. voilà il derrière. mi ngi noonu aywa <laughs> euh, Abdourahmane Diallo maa ngi lay nuyu. maa voilà mu ngi noonu euh, yaa ngi en ci télévision Futur Média Abdourahmane Diallo bu rajo Futur Média euh, foofu euh, bureau de vote ba nekk Ziguinchor centre de vote ba yaa Anta Babacar Ngom Mermoz pardon man maa juum donc yaa ngi bureau de vote boobu nekk Mermoz foofu la Anta Babacar Ngom di voté ñu ngi gis ci image yi ne yegsi na avec son époux et vraiment délégation bi mu àndal waaw euh, jamono ji may wax ak yéen mu ngi ci bureau numéro 4 ci lycée Galandou Diouf. Mhm. Anta Babacar dugg na ci salle bi euh, poste bi may wax ak yéen mu ngi voté. Mhm. Euh, génnagul daal na jël juróomi bulletin ci yooyu Boubacar Camara Déthié Fall Habib mhm. ak bulletin li nga xam ne nemmeeku nañ ko mooy jëlul bulletin Amadou Ba jëlul bulletin wu Bassirou Diomaye Faye donc pare na li nga xam ne moom mooy voté. xam naa ci kanam rek dinañ ko jël ci lu jëm ci wàllum interview yi ngir mu wax ñu réaction yi nga xam ne. Mhm. Euh, loolu la def ginnaaw bu bokkee. voilà donc def ne noonu daf ne jël na cinq bulletins la jël euh, euh, comment se passe se déroule le scrutin dans l'ensemble ci foofu ca Ngalandou. waaw dans l' ensemble mën nañu wax ni euh, amagul kenn ki nga xam ne am na lenn lu ci plaindre lépp mu ngi jaar yoon. Mhm. Euh, et puis vote bi dafa gaaw ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi wala boog électeurs yi ñu ngi def le maximum possible bañ a jël dix neuf bulletins yi daal di jël li nga xam ne moom mooy euh, cinq bulletins ngir boot bi mën a gaaw donc jamono jii nii loolu lañ nekk di dund am na lenn li nga xam ne mu ngi yéexal vote jërëjëf merci beaucoup Abdourahmane euh, Diouf Mamadou Ndiaye également moom it mi ngi ci euh, euh, prise yi ci kanam dinañ ko mën a jël ak la déclaration bu candidate à la présidentielle bi di Anta Babacar Ngom moom it jël nañ ko Bassirou jamaay Faye ñu ngi xamal ne egg na dëkkam muy njaga ñaaw moom it incha allah bés bu duggee ci centre de vote bi dinañ ko mën